mbokki àddina dal leen ak jàmm ci kii di Serigne Cheikh Ndiaye Njare moom Serigne Cheikh Ndiaye Njare di fajkatu aajo di listixaar di ñaan di faj mboolem tawat yi nga xam ni dafay dal doomu aadama moom Serigne Cheikh Ndiaye képp ku ko xamul itam dégg nga ko ngir lépp lu muy def mi ngi koy lay taayee alxuraanul karim moom Serigne Cheikh Ndiaye Njare dafa yëngu ci wàllu nopp rawatina ci diggante góor ak jigéen képp koo xam ni da ngay ay kayit tamu jafe la nga bëgg mu yomb lool jokkoo la kii di Serigne Cheikh Ndiaye Njare dafay faj rab ci doomu aadama sekk yëkkati ko sànni nit sekkee dégg gu jam ku bëgg ubbeekukaay yi moo ñu ci doy yor na itam cangaayu njare di cangaay lu am doole lool bëri njariñ ci yaramu doomu adama moom Serigne Cheikh Ndiaye njare itam andi leen ndomba gi nga xam ni moom lañu duppee ndombak njare di samp nit ci bërëbu liggéeyukaay yi ba du ko mënal dara di liggéey itam bayre ak kaaraange moom Serigne Cheikh Ndiaye nii muy ñaane noonu lay faje ci gàncax ak ci ren ñeel mboolem tawat yi di dal doomu aadama yéen ñi amee ndoxum siti hémorroïde diabète asma ak néew kàttan ci wàllu sëy wala tëlee andi na leen garabu ngóor gi mu tuddee gaynde gu góor gi soxor gaaw efficace di la jox kàttan 100 pour cent ci sa biir néegu sëy yéen mbokki Sénégal yéen mbokki àddina jokkoo leen ak Serigne Cheikh Ndiaye Njare borom njariñ lii ci 78 475 27 82 78 475 27 82 ak Serigne Cheikh Ndiaye Njare la jeex na njaaxare tuxu na xel mu dal sanc dëkk ba faaw. stade yéenekaay ñancoo Sadio Mané la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa dina dem ca réewu Arabie Saoudite club bu ñuy wax Al Nasr loolee daanaka lépp yemb na su loolee amee nag punkal dëgg dina dem ca Arabie Saoudite club ba mu nekk di Bayern de Munich ak Al Nassr jubo nañu ci lépp waaye fekkoon na ñancoo Sadio Mané jubo ci lépp ak waa Al suba ci dimanche ji nag la ñu war a amal visite médicale yi ca Dubaay su lépp yembe mu xaatim contrat doxal ca Arabie Saoudite kon nag ñancoo Sadio Mané mi ngi waa a génn Europe ji nga xam ne yàgg na fa lool ndax def na fa fukki at ak ñaar club ba mu njëkk moo di Metz nekk ci réewu France club bi mu mujj moo di Bayern de Munich loole sax dinañu ci ñëw ci nu mu gën a yaatoo bu transfert boobee officiel waaye journal bi tamit ñëw na ci diw bu bees tàq bi nga xam ne waa Chelsea am nañu ko muy doomu Sénégal bii di Nicolas Jackson ak doomu France bii di Christopher Nkunku ñoom ñaar jamono ji li ñu dugalagum ci ay bit ci match amical yi nga xam ne Chelsea mi ngi koy amal toll na ci ñeent passe décisive it am nañ ci ñett muy ñoom ñaar ñii kon nag diw mi xaatim contrat bu yàggul ca olympique bu Marseille yit mi ngi wax nee na moom yàkkamti nan lool saison bi door mu dem ca vélodrome doxal Vélodrome nag ku ko xam-xam ne stade bu rëy la terrain bi yaatu na te supporteru Marseille yi dañuy tàngal waaye Ismaïla sar nee na yàkkamti na lool saison bi door mu dem ca Vélodrome doxal Abdallah Ndour it mi ngi ci journal bi moom nag défenseur la ci équipe nationale A bu Sénégal li xam xamle nag moo di équipe nationale bu Sénégal mën naa doubler kaan bi maanaam bi ñu jëloon nii mën nañu caa teg beneen Abdallah nduur moo yëkkati kàddu yooyu waaye journal bi tamit bi nga xam ne jamono ji amalee ca réewu Rwanda tey jii nag la équipe nationale féminine bi di basket matsam bu njëkk bu quatre heures jotee Uganda la ñuy jàkkaarlool ca capitalu Rwanda di Kigali kon nañu ñaanal équipe nationale féminine bu basket bi jël afro basket boobee nga xam ne door nañu ko démb ñu jugee stade yéenekaay dem groupe Futurs Médias fekk fa record yéenekaay ñancoo Sadio maane ak farandowam bu bees di Cristiano Ronaldo le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa lépp yemb na Al Nassr ak Bayern de Munich nañu ci lépp doomu Sénégal bi dimanche nañu koy xaar ca Dubaay mu amal visite médicale yi su lépp yembee mu xaatim foofee contrat wu ñetti at salaire bi ñu koy fay nag at mu nekk ñancoo Sadio maane dina laal cib xaalis lu toll ci vingt six milliards franc CFA ñaar fukki milliards ak juróom benn moom la ñu koy fay at mu nekk muy ñancoo Sadio Mané Nicolas Jackson nit mi ngi ci surnal bi kii wax ci moom nag moo di Mauricio Pochettino mi tàggat Chelsea nee na gone gi am na talent li muy def mën na ko lool lenn képp moo ko manqué physique ndax gone gi physiquement des na dafa gaaw a sonn kon li ko war moo di liggéey taxaw physiquement waaye gone gi li muy def mën na ko lool Mauricio Pochettino mooy yëkkati kaddu yooyu ñu jugee Sénégal wutali Londres Angleterre fekk fa Mirror Sport David Beckham la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa kii nag ancien joueur la ca Manchester United waaye les légende la fa tamit maanaam ponkal la ca club boobee jamono ji nag mooy président wu Inter Miami bi nga xam ne fa la Lionel Messi la ga di football moom nag mooy becc ay kaddu yu dëggam ci ancien clubam bii di Manchester United rawatina ñi ko moom di famille défenseur doomu Angleterre bi di David Beckham nee na maa ngi leen di bàyyi xel bu baax ndax xam naa ni ñoom mënatuñoo yor club bi li ko waral moo di kat supporters yi wóolootuñu leen te doy doylootuñu leen te supporters yi nag dañoo am doole lool ca club boobee kon nag jàpp naa ne li gën moo di ñu jaay ko ci fàttali famille Glasseur tamit loole la ñu bëgg ndax am na ñaar ñu ko fi bëggoon fan yële sax waxtaan bi sori woon na lool waaye jamono ji nag dafa taxawa taxawandeegum muy doomu Angleterre bi ñu naan Redcliffe fële ca Qatar it am na seen doom bu ko bëggoon doomu Angleterre bii di David Beckham nag li mu bëgg moo di su fekkee dañuy jaay club boobee mu jënd ko ndax moom nee na club bi dafa manqué ñu ko taxawu te su amee ñu ko taxawu investir fa maanaam indi fa xaalis bu bari jënd ay joueurs yu mag deferaat Old Trafford rek jàpp na ni club bi dina jugaat nekkaat mën Manchester United gi ñëpp xamoon moom nag nee na mi ngi bàyyi xel club boobe te li mu bëgg moo di jënd ko deferaat ko ngir supporters yi mën a wéy di bégee loolee la David Beckham le ñu jugee Londres Angleterre wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay Kylian Mbappé la surnal bi fësal ca wu njëkk wa ginnaaw bi waa Paris woowee Real de Madrid xamal leen prix bi nga xam ne moom la ñu bëgg ci Kylian Mbappé jamono jii waa Real de li ñu bëgg moo di wuti xaalis xëpp ko ci doomu France bi waaye journal bi neena na jamono ji nag waa Real de Madrid ñoo ngi càmbar mbir moomee te ñoo ngi xalaat sax def ci deux cent vingt cinq millions d'euros jëlee ko ca Paris indi ko ci Liga e ba mu doxal journal bi nee na loolu nag su fekkee waa Paris bañ nañu ko Real de Madrid noppi na ngir téye boppam ba saison bi jeex Kylian Mbappé ñëw gratuite ci seenub club deux cent vingt cinq millions d'euros yi daal su fekkee Real de Madrid def nañu ko ci Kylian Mbappé Paris bañ Real li muy def moo di toog xaar ba saison bi jeex Kylian Mbappé ñëw foofe gratuite waaye yaayu Kylian Mbappé nekk agent wam mi ngi wax ak waa pari jaarale ko ci intermédiaire bi nga xam ne moo yor transfert boobe nee na leen yéen waa pari su ngeen bëggee Kylian Mbappé jugee fii deux cent cinquante millions d'euros yi ngeen ciy laaj wàññi leen ko ndax cher na lool yaayu Kylian Mbappé moo xamal kàddu yooyu waa Paris jagleel ko intermédiaire bi waaye journal bi tamit ñëw na ci classico bi war a am tey jii bu vingt et une heures jotee Barcelone mooy jàkkaarloo ak Real de Madrid classico boobee nag am na ay opportunité yu ca nekk yu bari bu dee Xavi mi tàggat Barcelone moom li mu bëgg moo di clubam boobee màggaat am ndam wala ñu def match bu baax fàtte match bu bon bi nga xam ne defoon nañu ko bu ñuy jàkkaarloo ak Arsenal bu dee waa Real de Madrid ak Carlo Ancelotti schéma bi leen ñëpp xamee bëgguñu koo soppi ndax xam ngeen ne jamono ji Real de Madrid 4-4-2 lay footballé am na ci ndam nag ndax dóor na ci Manchester United door ci AC milla li mu bëgg nag moo di wéyal ci schéma boobe waaye journal bi tamit ñëw na ci waa Paris ñoom dañoo bëgg Ousmane Dembélé li ñu bëgg moo di jëlee ko ca Barcelone xaatimal ko contrat loolee la bi xamle ñu jugee Marc kaay yéene kaay jël aas yéene kaay Bellingham ak gan la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa tey ji xam ngeen ne classico day am ca réewu Amérique moo tax journal bi tuddee ko le classico américain ndax ñoom la ñu ko jagleel ci seen réew moo moomee lay amee dëkk bu ñuy wax Dallas foofee la classico bi di amee stade ba muy amee nag mi ngi tudd AT&T e waaye stade boobee nag tey jii foo sànni mbattu dina takk ndax bii yi jeex na tàkk dina fees dell loolee la journal bi xam le soo moytuwul duñu football match boobee muy Arda Güler nekk ci Real de Madrid moom nekkagul à cent pour cent loole bokk na ci li tax soo moytuwul du futbal match boobee bu dee Gavi tamit footballam ca match boobee wóoragul loolee la journal bi xamle Diego Simeone mi tàggat Atlético de Madrid tamit mi ngi ci journal bi moom nag ki muy tàgg moo di Alvaro Morata nee na gone gi professionnel dëgg la te punkal la ci attaque bi entraînement yi tamit mi ngi ciy jëmbat ful naam moom li mu bëgg moo di ca club boobee muy Alvaro Morata waaye ki koy tàggat di Diego Simeone mi ngi koy tàgg jagleel ko sournal bii di AS yéenekaay ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport guddi classico de la ñuy xaar tey jii moo tax journal bi Bellingham ak Ilkay gan la fësal ca wu njëkk wa ñaari gan yi nag tey jii ñoo ngi leen di xaar ci classico bi war a amee ci réewu Amérique waaye ñaari gan yi nag ñoo ngi leen ci xaar muy Bellingham ak gounda gan ndax ñoom ñaar ñëpp nag gan lañu ci club yi nga xam ne fa la ñu nekk bii seen classico bu njëkk waaye kat dina am ñoo xam ne miinoon nañu classico bi daan fa doxal tey jii kenn du leen fa dégg waaye kenn du leen fa gisit bu dee ca waa Barcelone la sa xam ngeen ne def na jaloore ci classico waaye tey du fa nekk Jordi Alba kasaalika bu dee ci côté Real de Madrid Karim Moustapha Benzema nekk ko fa moom nag classico yi daan na ci amal ay jaloore waaye tey kenn du dégg turam ñu juge esport jël Mundo Deportivo Ousmane Dembélé le journal bi fësal ca wu njëkk waa Paris nag attaqué nañu ay mbiram Paris li ñu bëgg moo di fay clause bi nga xam ne moo ko bàyyi ca Barcelone jamono ji nag ci cinquante millions d'euros ci la toll waaye bu ñu yeggee ci lëndi clause boobee day yokk waaye jamono jii daal waa pari li ñu bëgg moo di baral jéego yi xaatimal ko contrat nee ñu noppi nañu ngir fay clause bi te agent wam sax waa pari ñoo ngi waxtaan ak moom ne ko baralal jéego yi soo amalee loolee ñun waa Paris dinañ la jox vingt cinq millions d'euros loolee la waa Paris dig agent wu Ousmane journal bi waaye jamono ji nag Paris dañoo yàkkamti lool ndax bu ñu yeggee ci lëndi clause bi day nekk cent millions d'euros loole bokk na ci li tax nag ñu bëgg a baral jéego yi balaa yàgg ñu matal mbir moomee Ousmane Dembélé xaatim contrat ca Paris wuutu fa Kylian Mbappé loolee la journal bi xamle waaye journal bi tamit ñëw na ci classico bi war a am tey ci classico boobee nag waa Barcelone ànd ak Xavi li ñu bëgg moo di jëmbat ci fulla ju mat sëkk ndax kat ni ñu dooree match amical yi baaxut Arsenal lañ doon jàkkaar lool mu gañe leen juróomi bal ci ñett loolee tax na nag tey jii li ñu bëgg moo di bu ñu jàkkaarloo ak seen wujj yi di waa Real de Madrid jëmbat fulla soppi seen xar kanam doxal ca match boobee am ndam kon tey classico bi du yomb loolee la journal bi xamle ñu jugee Espagne wutali itali wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport waa Juve la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa Juve ci biti Fiorentina ci biir ndax Juve waa UEFA ndogal li ñu jël moo di duñu football league conférence qualifié woon nañu waaye dañu leen caa seppi ba ñu set wicci li ko waral moo di mbuxum yi nga xam ne amaloon nañu ko jamono jii nag waa Fiorentina ñoo leen di wuutu kon Fiorentina mooy football league conférence loolee la journal bi xam le waaye journal bi tamit ñëw na ci doomu itali bii di Federico Chiesa moom nag nee na mi ngi xaar lukaaku foofee li mu bëgg moo di Lukaku ñëw foofee ñu ànd doxal waaye Juve googee sax démb da doon amal match amical ak AC Milan match nag ndam demul dikkul waaye ca tir obi but ci la waa Juve ànd ak Maximiliano Allegri am ndam ci kaw Pioli ak waa AC ndax waa Juve dugal nañu juróom benni penalti waa AC Milan dugal juróomi penalti kon Juve moo am ndam ca match boobee ñu jugee Corriere dello Sport de Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport waa Juve le surnal bi fësal ca xët wu njëkk wa waa Juve nag tàggu nañu Europe ndax saison bii ñu dëgmal benn compétition européenne duñu ko football Ligue conférence la ñu woon waaye kat waa UEFA seppi nañu ca seen loxo ba mu set wicci waaye dix millions d'euros yooyee ñu war a fay jamono jii nee nañu du ñu def appel dañuy bàyyi noonu rek kon daa mel ni waa UEFA xam nañu li ñu def ndax dix millions d'euros yi li ñu jàpp moo di xaw naa yemandeegum waaye kat ñoo ngi leen di artu waa fa nee nañu waa UEFA su ngeen defaatoo lu xaw a méngoog lii di ngeen ci yokkaat yeneen dix million muy vingt millions d'euros jamono ji nag nee nañu noppee ngir def